قيس أفاد الله الله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 صراط الذين أنعمت عليهم أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء fa innahu yulaazimu ma axza wa asaa wa ma aataakum alrasul fa xuduuh fa man yacmal mithqaala darratin xayran yarah fa tuuba liman axada ma ataa bihi alrasul alayhi bi aalihi wa saxbihi salaama mucti suul walilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr laa ila alkadari waddayr wa waylun liman lam yaxud ma ataa bihi almuntaqa عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقام وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحصد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثوابا ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أخبر شيخ الخديم بأن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا faqad amarahu man waadahu nasiha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يستطيع فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم غيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة, والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذوي الغزوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك walam yakun lahu waliyun min az-zulm subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gannaaw bu nu santee sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di jottali kàdduy sëriñ bi sëriñ ba sëriñ bi mi ngi ñuy nuyu ci ndigalul sëriñ Abu Baraka moom it mu jële ndigal ci a Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na leen fi yàlla bàyyi te wéral leen sëriñ bi nee na mi ngi ndokkeel ñépp ak fu nit mën a nekk ci xew-xew bu mag bi nga xam ne moo fi dajale muy bis bi màndargaal matuk weeru koor yàlla na ko yàlla delloosi ay ati at te fekk fi nee na nag am njàngat ak waar am na foofu ndax ci fan yu néew ci ginnaaw ñi ngi wax waxi teeru weeru koor yàggu dara ñi ngi nii di tàggoo ak moom yàlla na nu dëddoo jàmm te doon sunu seere bu ëllëgee loolu nag lañ cay jàngate mooy kon am na weer woo xam ne jóge na ci sunu dund te du dellu si waat bëccëg yan doon woor di jéem a dundal guddi ya amoon nay coono waaye yàlla na ko yàlla nangu te kat ñu xam ne bis ya moo jàll waaye yool ba moom daf ñu fay nekkal ba faw yàlla nañu ko suñu borom dencal fu yàq du yegg muy weeru barke di weeru ngëneel di weer woo xam ne ña ca def seen waxtu def ca seen kem kàttan ne leen wóor ne sëriñ bi bind na ci ay mbindam ne lu bari ci li ñu doon wut bu ëllëgee yàlla dana leen ko fulal ba ku lu ñoom man leen a ñee waaye sëriñ bi nee na it ña ca dese woon a dox ay jéego yit nañ xam ne àdduna jeexagut ginnaaw weeru koor mi ngi fi nañu yeesalaat tuub te fas yéene li ci kanam fu ci joxoñu suñu borom féete mu bañ noo raw ñu bañ naa ko rek ne weeru jàll na kon lu baax jàll na waaye yañ ca nekke woon muy xañ suñu bopp lekk ak naan ci bëccëg bi lépp ak yam yi àndal yépp tam dagan guddi ya waxtu yañ ca waroon a for bët ñu taxaw ko te yàlla tax nee na kum rawit mën naa tuub dellu suñu borom xam ne moom mi santaane woon ba fii mu nekk mi ngi fi bu kenn naagu ne daal gaa yi jël nañu yëf ya dem nañ moo wax ci alxuraan ne yow yonent bi waxal jaam ñi ne leen eh, lu leen weesu woon ci fu ñu waroon a amee lu baax bu waxtu wa jàlle bu mu tax ñu naagu ci ne lu baax jeex na nañ tuub te fas yéene dabaat dabi ko rek qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah bokk na nag ci mandarga yi ñu xame ne koor nangu na doonte yàlla moo yor nattukaay ba suñu sawar ci jaamu yàlla gannaaw koor gi kenn ku ci nekk lam doon def ci lu baax ci weeru koor gannaaw bu digganteem ak boroomam jàllee ci woor ko yu baax yam doon séq ak jaame yàlla yi it na xam ne yàlla moom ko doon séqal te di ko jaarale ci jaam yooyu yàlla mi ngi fi te mi ngi nangu ba fii mu nekk nañ ko gën a wéyal mu mel ne daal ni mu ko waxee su ma ko déggee mooy weeru koor day mel ne euh, ndóbinu boo xam ne boroom da ko sol ba mu fagg bi mu duggee ci weeru koor nag mu gupp ko ba mu set wécc mu fudd ko ba mu tàlli rikk nay xool fa muy teg tànkam di fa dox di fa jëm ak bu bëggee jekki it mu xool fa muy jekki ba xam fu méngoo la ak ndobinom boobee waaw wala déet sëriñ bi it mi ngi ñuy dénk ne bokk na ci <clears throat> doxiinu gaay yu baax yu jëkk ya bis bu mel ni su ñëwee ñu feeñal ko seen mbégte lool seen diggante ak seen moroomi jaam yi kenn ku ci nekk fexe ba ñi la gën a jege ci njaboot ak i dëkkandoo kenn ku ci nekk yëg na yow mii kat tey wute na ak démb ci wàlluk fas kanam wàlluk tëj sa kanam wàlluk aw waxin ak wàllu ab jëflante ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne yërëm leen ñi ci kaw suuf ka ca kaw asamaan yërëm leen irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama kon tey bis bu mel nii bisub jéggalante la bisub baaloonte ak la te ku bëgg yàlla jéggal ko dugg ci fukki fan yu jëkk yi ci weeru koor bi ak yi ci dégg beeg yu mujj ya na fab jéggale ak jéllale def ko muy mat goo xam ne gii fu mu jëm làng-làngee ko yóbbaale ko fa wal yaafu wal yasfahu ala tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum wala man sabara wa xafara inna dalika la min azmi al kon boog li ko tàmbalee tey nañ fas yéene kuñ séqaloon ñu jox ko loxo bu fekkee ñoo ko ko war a jox ne ko baal ma àq koo xam ne kii moo ñu ko amalit buñ ko xamee te xamu ko ñu jëlale te seeral yàlla baal ko àq fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah euh, fexe it sëriñ bi nee na ba set wëcc setal suñuy xol ci ëmbal nit ki dara moo xam muy ko jege wala ko sori dox doxin wa gaa yi daan dox di jëkkante fu ñu ne suñu borom dafa joxañ wala ku suñu borom joxañ la te muy lam yor mënuñu koo ñàkk ñu fexe ba kenn bañ ñu caa gën bañ ñu caa man saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin mu mel dañ koo laaj ñooñu mooy ñan mu ne alladina yunfiquuna fi sarraai wa darraai wal kaadimina al gayta wal aafina an innaas mooy ñi nga xam ne bu joxoñu suñu borom jàllee it ci lu mel ne weeru koor wi ñu génn du tee fu ñu dégg lu baax daw wuti fa ci nan ci luñ man ci dimbale ko ñu war a dimbale lenn li ci suuf bu fekkee suuf la laaj lenn la ku ñëwal boppam ne daa yittewoo tey wan na mer te ëmbal ñëpp jàmm sëriñ bi ne loolu yàlla na ko yàlla jàppandalal ñëpp. nee na it ñu gën a góorgóorlu fexe ba li alxuraan wax ne ahsin kama ahsana allahu kenn ku ci nekk lam yor ak fànn gu mën a doon mu xam ne yàlla mooy joxe te day dénkaane rek mayewul dara day able su ko defee lam ko abal diir ba mu koy yor mu fexe ba fa mu bëgg mujj ak yàlla bu ëllëgee mu seq mu jaar fa ak jaame yàlla di jokk ku ko dog di jox koo xam ne démb akus néew da koo laajoon mu xañ ko waaye di jegal ku ko tooñ tey dox ci diggante yi bokk yi nga xam ne ay ñagas ñagas laa dox seen diggante fasilu man xataakum wa utu man xaramakum waafu amman zalamakum wa aslihu data baynikum wa aslihu bayna axawaykum ñu jëlee ci abu hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallama nee na bisub altine bu nekk ak bisub alxames yàlla dafay ubbi bunti aljanna yi fas yéenee jéggal ñépp te aljanna njéggalu suñu borom moo fay dugal nit nee na nag njéggalam googu ubbi na bunt yi jéggal ko ba mu des ñaar koo xam ne daa wutal yàlla ku dend ak moom ci pas-pas ci wax ak ci jëf yàlla ñu ci yàlla musal muy benn kooku moom yàlla taxul mu ubbi buntam yooyee ka ca des it mooy koo xam ne digganteem ak mbokkum jullitam ak mbokkum dëkkandoom daa am lu fa dox loo xam ne kenn mënu koo lijjanti kooka nag yonent bi neen yàlla day wax ne bàyyil ñaar ñee bañ defaroo saa bu ñu defaroo bunt yi ubbiku na ngir saa bu ñu bëggee dugg dugg tuftaxu abwaabul jannati yowmal isnayni wa yowmal xamis ni bis ni tey fa yuxfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'an illa rajulan kaana baynahu wa bayna axihi shaxna fa yuqaalu anziru haadayni xatta yastalixa yett yoon la ko wax anziru haadayni xatta yastalixa anziru haadayni xatta yastalixa sëriñ bi it nee na bu loolu jàllee ci jëflante yi nga xam ne gën naa yaatu ci ab diggante muy koo xam ne daa yor lool mbooloo mi da koo soxla wala mbooloo mi bokk ko dénk ko ko mu fexe ba lam war la woon lam war la ñoom lenn lu ci nekk bu waxtu woo jotee mu sabab la ko bu yàlla bu sottee mu xam ne loolu la waxante woon ak kooku bu sa tuutit kooku ku mu ko séqal xam ne jéem na ko def na ca kem kàttanam yàlla mi sottal moo ko sottalut waaye daal bu mu fas mukk digganteem ak moroome jaamaam yi lu mu narta def sëriñ bu mag bi daa am ko ko doon tàgg ne ko loo wax def ko mu ne ko yàllaa ko man waaye du ma wax lu ma narta def sëriñ bi ne nañ jàng bind boobu baax a baax mooy fi suñu borom di wax ne wa man awfa bima aahada alayhi llaah fa sanuti ajran azima ci tënk daal sëriñ bi nee na ñii jàngale jàngale nañ ñii waare waare nañ ba tey ba lii leer lépp ñu war caa jëm bare na ñu dugg seen bopp li nga xam ne it waru su fa jëm dugg seen bopp diggante bi nag di ay ñugu ñugu daa mel ne fi la nit ñi bëgg a toog jëm bu kenn xamut nee na nag ku toog ci ñugu ñugu yooyu muy xamut ku koy xool doo xam ci lu leer la nekk wala lëndëm la la nekk lëndëm ak leer rek moo fi nekk nit day ne ci leer gi wala mu ne ci lëndëm gi day ne ci ker wala mu ne ci aw naaj te bañ nekk ci li ñuy wax ci nguñ tàngaañ du ker du naaj ndax yonent bi suñu bi nee na yonent bi sa alayhi wa sallam nee na ku nekk foofu daa mel ne ku yor ak jur di ko sàmm ci wetu aw lew mooy ab tool su farluwut lool jur ga kenn ca ñoom rek mën naa wadd na dagaj ca tool ba na ci ca pit sax su boobaa it duñ ko laaj jur gi waaye borom jur gi lañ koy laaj moo tax kenn ku ci nekk na tàmbalee ci ak njabootam fexe ba di waxtaan ak ñoom di leen leeralal di leen jàngal li ñu war a def ak li ñu warut def te bañ a fexe ba ñu dugg ci yi nga xam ne ci nguñ cangañ la du ker du naaj ndax nee na kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aw lumb ngi ci nit woo xam ne su jagee lépp jag waaye su melee ne ne nit buy dem day yóbbaale yaram bépp te mooy ab xol kon sëriñ bi ne nañ fóot xol yi te fas ko yéenee dugge ci ndigali suñu borom yi te fexe ba bu ñu suñu borom seen mukk fu mu ñuy tere te moytu ci ngiñ cangañ yooyu nga xam ne du ker du naaj te rafetal yéene yi te defaraat diggante yi te fépp fu mu dégg diggante nit ak mbokkum jullitam wala mbokkum dëkkandoom mu dox jéego yam ca man sëriñ baa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp kenn ku ci nekk tànk yi mu fi ñëwee ak yi muy delloo yàlla na ko suñu borom def tuyaaba te may ñu ñu fekke wat déwén ak déwén ak déwén ak déwén muy lim bu yàlla rek xam fa muy yem te lañ ci jot a ko ku néew yàlla na ko yàlla nangu di moom ci boppam nag moom sëriñ bii di yëkkati ay kàddu ñaan di ko jëmale ci sëriñ Abou Baraka ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak mbool kenn ku ci nekk yàlla may ko ak wér may ko ak tal ba kenn ku ne lam yéene doon a euh, lam jëfagun doon yé doon doon asaka yi lam yéene te yàlla mën la ko di ñaanit li nawet bi nga xam ne moom la ñuy jub yàlla na ci suñu borom yàlla nañu suñu boroom tin ci barkeb sëriñ bi def ko muy nawet bu teel bu barkeel boo xanee du ànd ak benn yàqu-yàqu tudd na nawet bi waaye mbooleem lu waaye di liggéey it yàlla na dugg ci biir loolee bu dee liggéey bu dagan la euh, sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñépp ni mu ma ko waxe woon nag sama làmmiñ a sama xel a neexul ba ma mën koo jàpp sama làmmiñ setut waaye dañ doon feeñal yéene te ndigal boo mënee defal boo mënutit jéem la def lu ci jub lu nekk ci moom la lu ci mel ne ne nit man nangu naa ko nañ ma ko jéggal sëriñ bi ñëpp ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te yàgg a jiite njaboot gi te njaboot gi it yàgg a topp ci sa ginnaaw la sëriñ ba waxoon eh, amoon na ndigal ci saa su ne ma di ko fàttali que ñëwoon ci sëriñ lu Mbakke ne ko dama laa yittewoo mu ne ko cig wéet wala cig ko mu ne ko yaar yëpp la mu ne ko bisimilah mu ne ko dama topp borom barak bi muy cheikhul xadim ba gisatuma ko ma ñëw ci cheikh moustapha ba gisatuma ko mu ne ko nga ñëw tey ngir lan mu ne ko fës yéene ànd ak yow lu yàgg a yàgg mu ne ko lu yàgg yàgg yooyu nag bu mu dàkk yow def ko wert kon sëriñ bi euh, bu la soobee nga seet na ko war a jàllale waaye ñun ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lu yàgg a yàgg a yàgg te saa boo xoolee it seen njaboot gi ñuy dox topp ci sa gannaaw te nga ñaanal njaboot gépp ak fu ñu mën a nekk liñ xam ci yéen mooy ñépp ak njaboot nga leen jàpp kenn ku ci nekk lu mu bëgg a def ci lu baax xol baa nga fa na fa man-man ba nekk ak fu waay mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah